lii dafa am ci nit boo ko xamul nekk yow di nga sonal sa bopp sonal nit kooku noonu déglul moo wax la ko s'il vous plaît likeel vidéo bi te nga abonné merci beaucoup aywa déglul moo wax la ko mooy nit yàlla du ko bindee soppeeku maanaam tey mën naa ñëw di kaf di reetaan lu nekk mu wax la ko loo ko wax du mer ëllëg mu ñëw mer beneen melokaan nga xam ne maanaam boo dee wax sax yow <laughs> da koy déranger gis nga loolu saabu xewee ci nit comprendre ko te nga noppi bàyyi ko ak boppam bul ko wax dara parce que boo continuer di wax ak moom non mën naa indi problème mën na laa wax loo xam ne bugg koo na wax mën na laa wax loo xam ne après bu desuwaatee day toog di rus wala sax du la mën a xoolati parce que nit dafa am étape boo xam ne bu fa tollee maanaam boo mënta contrôler li nga xam ne mooy étape boobu noonu non ay tooxi doona rek lay dugg ay musiba kese lay dugg moo tax yenn mbir yi buñ ci demee li nga xam ne mooy xol waaye nañ ci demee xel danse yi nga xam ne moo ci nekk ak ndëgg sërëx yi nga xam ne moo nekk ci mbir yooyu waaye li ma la wax jël ko saabu dalee nit rek bàyyi ko ak boppam ba mu dellusi waat waaye li ma la wax rek jël ko nit bu nekkee ci yenn situation yi bàyyi ko ak boppam bul wax wax ju bëri ci wetam mu dellusi waat bu dellusi nga mel na nga meloon ak moom boo d'accordee ak man nee ma wii ci commentaire yi wa d'accordul ak man nee ma noo ci commentaire yi ndax ma xam merci kontaan naa ci yéen